salaamaaleykum beaucoup internet yu Saint-Louis TV daleen ak jàmm comme ni ngeen gissone affiche bobu legui muy Hello décembre bi yéena ko doon xaar ñewna muy concept bees tàq ko indil ñi nga xam ne di internet yi tay nak ñu nara a ak artiste yi nga xam ne dañ waxtaan waxtaan ak ñoom ñu mëna joxe li nga xamni seen message seen ay fans donc sans plus tarder aram bi nga xamni mom la laa woon sur le terrain dama kay daldi baye mu dem ni wax la la jot am fi nga xamni moy fi mu jëm aram ñu ngi lay nuyu jële char la ngeen indil ci émission bi nga xamni ne Hello décembre merci cher ñi ngi leen di nuyu suñu mbokk internet yi ñoo ngi fi ci Saint-Louis TV toujours su suñu première partie Hello December ñoo ngi leen di invité ci benn kër artiste foofu la ñuy waaj a dugg nii xanaa di leen wax ngeen topp ñu rek ñu xamanteeg artiste bi merci ba bokk internet yi xanaa ñu nuyuwaat leen rek ñoo ngi si kër benn artiste boo xam ne kenn dootu ko présenté di surtout si ndar géej ñu ngi leen di nuyu di leen ñaan ngeen dalal kii di suñu artiste bi xanaa di ko bàyyi mu nuyonteeg yéen présenté wu waaw salaamaaleykum kon maa ngi sant bu baax baax di leen wax yéen waa Saint Louis TV dal leen jàmm waaw soyez les bienvenus merci beaucoup di la wax tamit jërëjëf si dalal bi ñu dalal xanaa tey dañoo ñëwoon dañu am programme euh, décembre bu tudd Hello December tey ñu ñëwoon sa kër di la laaj nan nga dundee musique bi ak say fans di la wax aussi lan nga prévoir si décembre bi pour pour say fans. Euh, ku yokk yëg nga ku wàññeeku yëg nga kon ci côté boobu dama ciy sant yàlla bu baax a baax fans yi nag li ma leen di wax mooy xanaa di dalal seen xel di leen wax ni leen Mbaye Ndiaye Tilala toujours en action. insha allah bu nexé suñu borom ci fin d'année bi ngeen jëm euh bo tax ngeen genn ci ben 15 ben concept def ko hello décembre e, man dama ci and ak yeen gungé len ci bu baax baax du ngeen ci wét mais ma wax fan si ñu préparer que mbay jaay ci Tilala mi ngi ñew insha allah le 27 décembre ak lu bees tax insha allah rabbi kon ñu xaar le 27 décembre rek ñu xool mbay jaay lan lañu indil Euh, di la wax euh, mot de la fin lan ngay wax say fans te di est-ce que nga leen di souhaiter aussi euh, bonne et heureuse année parce que année bi léegi mu léegi mu léegi mu jot 2019 di la wax aussi nga souhaiter leen joyeux Noël aussi xanaa di la bàyyi mot de la fin bi nga wax ko rek say fans. waaw fans Mbaye Ndiaye Tilala yi maa ngi leen di souhaiter joyeux Noël yàlla def at bi ñu génn at bi ñuy dugg dàqal nu at bi ñu génn ndax. li am solo mooy jubo say mbokk li am solo moy jubo sa wa dekk te defena man jubo na ci la la jubo na ak wa Ndar donc nak juboo gog mo juboog wa Ndar tax ma ci sante yalla man lu am Ndar la luma mën Ndar la kon tay Saint-Louis TV bu déplacer wo ñew ba sama kër dekk mo micro yi ma wara souhaiter fans yi souhaiter téléspectateurs Saint-Louis TV

mbokk internet yi ñi ngi leen di dalalaat fii ci Saint Louis TV comme li ñu leen ko waxee suñu première partie émission ñoo ngi jóge nañu ci Mbaye Ndiaye Tilala instant bi dañu war a dugg ci beneen kër seeti beneen artiste boo xam ne waxuma la sax ndar mais kenn du ko présenté ti fii ci Sénégal xanaa ñu dugg rek ñu yonteeg moom te xamanteeg moom merci. yenn saa dinaa la wéetal waaye jumte du wees xamuñu li woon xarit dina gën doomu yaay kenn du la remplacer. waa mbokk internet Saint Louis TV ñoo ngi fii ñoo ngi fii ak benn artiste boo xam ne kenn ko présenté xanaa ñu bàyyi mu présenté boppam ñu ngi koy dalal fii ci Saint Louis TV xaar ñu bàyyi leen mu présenté boppam. yaa siyaare mbokk Saint Louis TV mbokk ñi képp kuy seetaan Saint Louis TV maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni maa ngi nii man Baye Mor Mbaye ah jeune talent bu nekk fii à Saint Louis tey maa ngi nii am contentement toog ak waa Saint Louis TV quoi.

on m'a éliminé à euh, par quart de en quart euh, ma ci sant yàlla mais teewul ma bàyyi benn yoon quoi ma ñëwaat fii Saint-Louis ñëw gars yi tamit teg ma ci kaw ak yéer ma aussi wan ni ma ko carrément xama rek bu fekkoon nit ku nekk yaay may sa bopp kon ku nekk di nga gis kenn du sañ a ëppale ku sañ a ëppale yàlla moo tax bi ñu yàlla maye loolu ñu nangu ko xama rek xam ne ay jaamu yàlla nañu d'accord Baye Mor pour ne pas trop monopoliser ton temps parce que dañ la fekk fii ngay répéter ñi ngi lay wax nga wax mot de la fin na, te bo ñu mëne defal ben petit acapella pour euh, sa ay fan. ok damay dellu di bëggee ñëpp rek ak képp kuy suivre euh, Saint-Louis TV parce que initiative bi dafa na trop parce que su la mënoon nañ ko def ci yenen cadre mais da ngeen ñëw lepp def ko ci Saint-Louis quoi li ngeen ci sentu ya yéen a ko xam ya nañ ko yàlla defal. et puis mooy souhaité euh, happy euh, new year képp koo xam ni yaa ngi ci àdduna bi moo xam yaa ngi koy dund moo xam dunduloo ko maa ngi lay souhaité euh, joyeux nouvel altine juddub yoneen gën gi talaata yi ndeer jàngal na la bàyyi ci xel àllar baykaari diis na lool bàyyi ci xel àllar bay kaari diis na lool bay ci xel. kon gaay lu neex di doy noonu ko dog bu beneen yoon ak waa Saint-Louis TV Big up méga merci beaucoup Baye Mor wa Cheikh loolu lañ lay indi loon ñi lay baye xana nga présenter yenen artistes yi di gune yi merci beaucoup wa Saint Louis TV internet yi ñi ngi leen di jaajeufal ba beneen yoon inshallah ok euh, merci Aram ci liguey bi nga xamni yang koy def donc di remercier aussi tamit euh, ñi nga xamni ne nga togaloon muy ki ci mel May Ndiaye Tilala ak ki nga xam ne di Baye mbay di rafetlu sen euh, disponibilité actuellement ñoo ngi tok ak wa gone yi bu ne gone yi xel yi dem ci ay dom ndar lañu loolu lepp ñëpp leer na ñëpp te aussi li ñi def amna solo trop donc ba nga def dara dañuy daaya ñi ngi tok ak ki nga xam ne di Baye Layla ak ki nga xam ne di euh, Pa donc balaa ñu def dara dañu daal di jox kàddu gi ñu daal di nuyoog ñi nga xam ñoo di seen ay fanse nuyoog ñi nga xam ñoo di mbokku ndax Layla ñu ngi lay siyaar. ñoo ngi delloo siyaar bu wér a wér. di la bégee bu wér. di bégee bu wér tamit di siyaar mbokku téléspectateurs yi di nuyu waa Ndar yëpp waaw di leen wax ne que ni waaw waa gulu yi ñoom ñoo ngi leen di siyaar bu wér a wér a wér. Mbacke eh, toog ak tamit suñu wet ki nga xam moo di Palaay Palaay ñu lay ziar. waaye ziar yéen a si jàmm bon ñoo ngi nuyu bépp téléspectateur Sans Louis Média di leen ziar yéen ñëpp ak eh, voilà di nuyu ñëpp ci eh, décembre bi quoi.

constance bi ak fréquence bi gars yi donc ñi leen dolli di sant di leen gërëm di wax ni que ni tamit buñu bayiwul ñun nous parce que loolu dafa am solo nga am ñi nga ñoo nekk ci sa ginnaw di la épauler ñu wuy la lo mënti def ñu top la ba fo mënti dem tamit waaw da ngay gessu gis leen donc dañuy dal liggéey bi la jom waaw ba décembre jogé nañu Sorano mais tooguñu ben yoon dañu jogé Sorano enchaîné samedi bi ñëw Sarawi pour mëna bégal gaay ni leen ni que goudi goudi goudi guddi ñun ndar parce que ñun ndar lañu am parce que fi lañu soxé ko fi lañu def suñu base ak yoy ñun yëpp donc gis nañu tay euh, des balaa ñu ci Sorano bi euh, bu né euh, goné yi tout temps dañuy wax ni ben famille en fait donc nan lañu nan ngeen mën dundé famille bobu nonu nek seen biir te du parfois ñëpp xam nañ famille dafa xaw metti parfois ñi laalante donc nan ngeen dundé nu mel noonu waaw loolu noonu depuis ci début ba la parce que paa bi comme que moom instituteur la woon moom daf ñu éduquer de telle sorte que lépp lu ñuy def ñoo koy defandoo ba pare mu cultiver su ñun benn esprit de famille bi nga xamante ni même xam nga bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. faaw ñuy laale mais même bu. amee problème nii bu ñu yéegee ci kaw scène bi doo ko gis parce que leneen mooy mooy ñëw taxaw bu ñu nekkee ci kaw scène bi mooy complicité beeg yooyu noonu yëpp te loolu noonu dañ ci sant di si gërëm suñu jur yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu aar iir ñu ci loolu noonu. noonu lay demee sax parce après dañu daal dugg si Sorano bi jox leen ko yéen ñi nga xam ne seetaan ngeen mën ko am. en direct loolu doon problème donc dañuy daal di ñëw si Pa Laye moom tamit mu euh, bàyyi lancé message am ñi nga xam ne ñooy fans yi ndax bu ne gone yi xam nañu am na ñu nekk seen ginnaaw lan ngay wax fans yi. waaw comme li may rek ay sympathisants la ñoo ngi leen di gërëm di leen sant quoi parce que gis nañu liggéey bi ñuy def. parce que fépp fu ñu dem avant Sorano bi dem nañu Ziguinchor gars yi dañu mobiliser wu topp ñu bon ñoo ngi siy jàpp ci affaire yi bu baax a baax di leen si gërëm di leen sant di leen masawu tamit parce que coono ñu ciy daj aussi mooy loolu ñoo ngi koy gis quoi te loolu noonu daf ñuy pousser à ce que ñuy gën a liggéey ñuy gën a liggéey pour bañ leen désevoir ci li ñuy xaar ci ñun parce que boo seetee ba seet loolu du nit du tëb tëb rek ñëw di la parce que gis nañu am na lu ñu gis ci ñun quoi te loolu bëgguñu ko wàcc ci ci ci ci ci chemin yooyu la ñuy topp di faay di faay pour que ñoom duñu mos a am. lu lay lu lu métti li xamante ne day métti ci ñoom jóge ci ñun quoi lu ñoo ngi ci dool di leen sant di leen gërëm di leen gërëm di leen sant quoi ci taxawaay bi ñuy taxaw. waaw yoon la donc ku nekk ak la yëngal man li ma yëngal mooy ala nuuti ala nuuti moom moo yëngal ndax <laughs> moo yëngal yëngal ñëpp donc bàyyi rek ngeen daal di may gaay lu ndaw ci ala nuuti bi. léegi ñu eggale ko ak euh, suraano bi parce que xam naa gars bu leen dem moo si topp incha allah di nga ko am en direct ngeen mën ko seetaan bu baax a baax mën na dund li nga xam moom la ñu gën a indi donc ala nduti aja ah bi ñu dem ci Alan Nduuti waaw aja Alan Nduuti Anduuti Alan bu ma yàq sama Alan Nduuti big donc ñoo ngi koy may Madiaye ak Wëz ndax ñoom ñoom ñoom concert am rek ñoom fu concert am ñoo ngi foofu quoi. muy ah, non Wëz ak Madiaye man dañ ma jaaxal boo yooyu quoi ndax foo leen fekk rek <laughs> ñu ngi si ñu ngi si ala nduti bi quoi. donc mbokk yi li leen indiloon euh, seen seen seen seen émission bi nga xam ni dañ leen ko jagleloon yéen ñi nga xam ne ay mbokk internet yi muy hello décembre bi des na am na yeneen surprise yi nga xam daan ko indi incha allah toog leen di ñu xaar rek restez connecté toujours sur votre chaîne Bitte. Was They were one and all, they were the people

원래 때문에 본방만을 내야될까 버렸 u never last e y a h y e v e r last me. y n e